pomme de terre yëpp dina am ngir mën a waajal tabaski bi xibaar boobu nag ki ko fësal mooy Ansoumana Sané nekk DG ARM gannaaw tukki nemmeeku bi mu amaloon fii ci mbaar euh, ci pomme de terre bi relativement amuñu ci problème parce que liñ fi ba juróomi weer pour consommation locale parce que euh, fi nekk macha allah waaye liñ fi fekk nag soble bi xam nañ koo xayma à peu près ay mille tonnes li fi nekk ak li nga xam ne war naa génn ci tool yaakaar naa ni sénégalais dinañu mën a jot bu baax a baax a baax ci soble ni bu manké danaka sos bi mënuta mënuta yem té am nañ assurance de la part de l'administration jox nañu ay rassuré nañ mom monsieur Sané di fessel sax donte am na ay jafé jafé dem ci soble si mom wax na ni jël nañu bép disposition ngir gëna mëna yombal ñënd mé ñay mi ci marché bi li ñu gën rassuré tamit moy dafa amone inquiétude moy main d'œuvre parce que ñi fi daan liggéey tabaski bu bu jege jege si rek dañu daan dem ñëge mais ñom lolu tam jël nañ ko en compte té da fay permettre que la ressource humaine bi fi nek mun a disponible ñu fekk ko fi pour que camion yi nga xamanteni dañuy ñëw pour jënd li nga xamanteni moy soble si wala pombiteer bi ñu mën fi fekk personnel bu doy waaye leneen li gën a askan bi te ñu war koo wax mooy njëg mu nekkoon ak tukki nemmeeku boo xam ni moom DG ARM lu na ko rawatina collaboration bi nga xam ni am na ci diggante Sénégindia producteurs yi ak ñi di commerçant yi